maire de Sédhiou muy Abdoulaye Diop ak le ministre Anet Seck nga xam ne moom mooy président conseil départemental n'est-ce ñoom ñëpp ak autorités yu fi nekk yëpp nga xam ne ñu gën jàppale ndaw ñi créer ay projet yu nga xam ne day générer ay revenus pour ndaw ñi loolu dina permettre ndaw ñi des ci dëkk bi liggéey fi parce que ñu si bëri luñ yaakaar Europe neexatul mhm. européens yi ci seen bopp ñoom dañu am jafe-jafe pour am fa liggéey mhm. ñu ci bëri dañu daw ci vers l'Afrique donc ñun ñu daan nar fi jógee dem foofu également da ngay dem ci ay jafe-jafe moo tax wax dëgg yàlla ñun nguur gi ñun la dénk lépp luy aménagement touristique te lépp lu nga xam ne mën nañ ko def pour que mu créer ay emploi wax dëgg yàlla dinañ ko def pour le bénéfice vraiment de la population incha allah rabbi infrastructure sportive yi euh, ñëpp gis neen stade bu nga xam ne tabax bi tàmbali neen ko pareegul nag wax dëgg yàlla Euh, bu ma fi ñëwee si finalu ligue régionale bi loolu rek waxoon naa ñu ngi ñaan nguur gi ñu yeggali ko ñu yeggali tabax bi. Mhm. te xam nañ ne président de la république son excellence Macky Sall wax dëgg yàlla lépp lu mu mës a diggee def na ko ñëpp gis ne nu mu changé xar-xar na mu Sédhiou moom bu mu doonee président wax dëgg yàlla lu mu fi def en terme d' infrastructure dans la région amul benen président bu nga xamné ne def na dans le passé donc kooku ku mel nonu ak hôpital bu ñu defal fi de niveau 3 ak yenen ak yenen pont de euh, Marsassoum bi wax deug yalla euh, ak yenen infrastructure kon stade bi lolu lu ndaw la par rapport ak projet yoy waaw xam nañ ne incha allahu rabi na ko te man personnellement dina ko rendre compte dina ko si dina ko euh, yeggali yóbbul waa mais également nañ ko wax également le ministre en charge des sports nga mom moy premier ministre